benn ci candidat yi ci acteur yi disons mhm. euh, nekk candidat euh, aussi ci élection yi mhm. di euh, yëkkati ay kàddu yoo xam ne mi ngi jëm ci wàllu intégration bi mhm. mais surtout jëm ci nationalisme boo xam ne daf koy woote mu am nag lum leen ci laale mais aussi candidat beneen ñëw seet si leen am lu mu waxanteeg yéen loola itam ñu dégg ci ay mbir yu ñuy rumandaat ñu bëggoon loolu yëpp leer ndax itam ci réew mi ngeen bokk dañuy doo rek intégration gestion bi mhm. euh, gannaaw effective na mhm. ban taxawaay ngeen am ci moment yi Sénégal di dund muy moment taxawal assemblée nationale bu bees mhm. élection législative yi lan moo ciy seen xool merci beaucoup bon avant tout dama naan intégration bi effective na parce que loolu bi mu dooree du tey li nga wax léegi leeral na ko leeral na ko léegi ci taxawaay bi nga xamante ni moom la euh, c'est-à-dire communauté sénégalo-guinéenne bi amee amee ko taxawaay ci législative bi taxawaay bu am solo la parce que dafa am loo xamante ni nit ñi dañ ko mënul ràññaatle mooy cest laa dire la communauté guinéenne yàlla daf leen indi ci biir Sénégal mu nekk communauté. bu mm. représentative ci biir Sénégal. doon ay liggéeykat di askan boo xamante ni wax dëgg yàlla li ñu leen xamee mooy diine ak liggéey. Mm-hmm. mais yàlla dogal. ñu am fi njaboot goo xamante ni njaboot googu sénégalais la parce que ba ci politiciens yi nga xam ne tey ñoom ñooy wàlliyaan assemblée bii ñu jëm nii tey mhm. koo ci xool ñii seen a ngi jóge Gabon ñii seen maama ngi jóge Mali ñii seen maama ngi jóge Cap-Vert xam nga c'est-à-dire mm. adduna noonu la doxee tey mm. tey dañu nekk ci mondialisation léegi nag sénégalo guinéen yooyu gis ni dañoo am rôle bu très important bu ñu war a jouer ci loolu mooy lan xool lan mooy suqali Sénégal bi nga xam ne ñoom dañ cee am wàlla ci biir loolu xool ban candidat moo ci yore profil boo xamante ni et puis ñun dañ ne woon ñun sax suñu bopp ñun ñi nga xamante ni depuis belle lurette ñu ngi fi sunuy papa bokk na ci ñi fi judd woon. wala ñii seen mag ba di ñëw ci suñu génération mais pourquoi pas que ñun mënuñu mënuñu mënuñu defaruwaat am fi maire am fi député. xam nga muy muy muy muy wax ci intérêt wu askan bi. parce que gis nañ ni politiciens yu bari yoo xamante ni bu élection jotee dañuy ñëw ci communauté sénégalo-guinéenne bi. Mm-hmm. def leen li ñu naan ci jamono teg maayeen ñëw cest à indi benn benn mbir boo xamante ni tegal ko seen kanam bëgg nañ ko cest à lan ngeen bëgg am au début am na ñoo xamante ni eh, intérêt personnel bi la ñu gisoon. Mhm. parce que expérience bi moo toll woon noonu. Mhm. dañoo am événement bu ñuy def jàppale leen ci événement bii dañu am soxla bi jàppale leen ci loolu mais loolu. du ñun sénégalais guinéen bi nga xamante ni dañ fiy juddu yaru fi màgg fi am fi ay teraanga di dugal suñu loxo ci développement wu Sénégal bi ñu demee ba tollu foofu lan la ñuy def bi ñu xam ne amuñu les moyen parce que man tey su ma amoon les moyens damay bokk ci candidats yi nga xamante ni ñoom ñooy présenté wu pour dugg ci assemblée bi représenter le Sénégal le peuple sénégalais. mais comme j'ai pas ces moyens là maa ngi doon observer parce que j'ai eu beaucoup de déception ci politique bi ni muy doxee. Hmm. parce que politique bi tey ni muy doxee da ngay mel ni guérilla ngay gis dafa mel ni ring ngay gis wala ay ghetto. parfois tu vois un homme politique bu defee discours da ngay jommi wala doxalinam da ngay a tas. Mhm. donc mu dem ba nga xamante ne taxawaay bi dafa jot. mais le Abdoulaye Sylla le leader Abdoulaye Sylla avant tout dañu koy sant di koo gërëm parce que sa vision kooku visionnaire la. mooy mm. nit koo xamante ni dafa am fu mu jógee mais dafa xam fi mu bëgg a tem mm. dugg assemblée taxu koo jóg yàgg nañu dégg la noodo Abdoulaye Sylla Abdoulaye Sylla te ñun musuñu ko gis musuñu ko teg bët mm. mais suñu relation Abdoulaye Sylla fan la juddoo juddoowul ci politique d'accord parce que daawaati géej en 2002 mai 2002 la ñu am dañu am patriarche. 2022 2022 dañu am benn patriarche boo xamante ni eh, ni Touba amee xalifa Tiwaawan amee ko xalifa këlu diine yëpp amee ko xalifa dañu am xalifa. Hmm. suñu xalifa di kilifa diine bu mag boo xamante ni dafa méngoo woon jamono ak kilifa diine yu mag yi ñuy tudd ci réew mi. te mi ngi am 109 ans. Hmm. macha allah kilifa diine Sénégal boo fi mus a dégg. ci ci ci cinquante soixante ans yii jàll seedeel na góor googu ne kii de wëli yu kaamil la kii de nitu yàlla la waaye bëggul fës bëggul télé bëggul caméra mi ngi wéet ak yàlla wéet ak kurusam ñu dem ba gis ni vraiment euh, euh, euh, yaafuuse weesuwul am lu day ni kilifa gii te tegaloo ko ci kanamu àdduna ñëpp njëriñu ci génération bii nga xam ne moom moo nekk tey ak fi Sénégal nar a jëm fii Afrique tollu tey ñaanam am na ci solo ñu ne dañ koy organiser ziar ziar boobu doon mbir moo xamante ne dafa dem ba ëpp ñu doole. Mhm. donc kilifa yu bëri dugal ci seen loxo mais duggalinu loxo kilifa yi mooy wax ci lu baax jéem ci lu baax. moment boobu euh, la yàlla dogal. ñu am c'est-à-dire contact avec Abdoulaye Sylla par le biais de son de son fils bi nga xam ne mooy Thierno Bokar sunu xarit sunu mag sunu leader ku ñàkk ki ñaan. Mhm. bi ko yàlla booleeg Abdoulaye yàlla def budget bi nga xam ne moom lañu amoon ci ziar boobu. ñu jox ko ab Ablaye moom mu laaj ko boppam parce que bi mu yëgee ne dañu nekkoon ci programme boobu. Mhm. mu daal di koy jël financé ko taxaw taxawaayu doom taxaw taxawaayu taalibe loolu marqué esprit c'est-à-dire toute la communauté sénégalo-guinéenne. booba politique jotagul. Mhm. booba xalaatuñu ne sax moom ab Ablaye dina dugg ci politique. coloré boobu nag continuer di wéy diggante moom ak famille bi diggante mhm. moom ak communauté bi diggante moom ak góor gi ba yàlloo yàlla def tey amul lu ñu déggul ab Ablaye tey boo ko xoolee du du du bëgg a dugg assemblée. du du jëriñoo c'est-à-dire politique wala koomu Sénégal mooy li nga xam ne moo ko tax a jóg mais suqali Sénégal moo ko tax a jóg parce que wane na see preuves là. bu bu rombee nag ay kër yu bëree bëree bëree bëree bëree bëri. jaar ci kër yu bëree bëree bëree bëri ba ñu bokk ci kër yooyu nga xam ne egsi na ba ca biir kër ga ñëw fa tànk doom ñëw nag wut si barke ci xamal ñu ne ci lii mu jëm aussi am na yaakaaru ñaan suñu góor gi ci lii ñu jëm nii mais lan mooy mbébétu góor gi parce que bi yàlla dogee mu xamal ak góor gi ba léegi mm. alhamdulilah la ca wax góor gi ne ko man man soxlawuma dara ci kërug àdduna teraanga àdduna bu ne yàlla defal na ma ko mais lépp loo xam ne mooy li ma soxla tey mooy li nga xam ne depuis presque euh, cinquante ans communauté bi ñu ngi koy jooy. Hmm. communauté bi ñu ngi koy bëgg wut mais yàlla dogalul ñu am ko dige yu bëri jaar na fi mais ab wax dëgg yàlla dara mu si cee nekk mooy am une grande mosquée guinéenne. ok ci la kon ni bàppa baax na. lii nga xam ne wax nga ma ko hmm. incha allah dinaa ci dox dinaa ci taxaw te dinaa ko seede hmm. bi mu waree ñëw ba yëgal góor gi dina ñëw nuy si ko góor gi ne nag ñenn ñi nga xamante ni yéen a ñëw di ma ziar si yéenay ñëw di def daayira sama kër mais ñëw leen fekkee bés boobu. kii di ñëw suñu nit la suñu doom la. bés boobu la ñëw ci kanamu nit ñi xamal leen ni fële ci jam ñaajo am naa fa 1000 mètres carrés boo xam ne amaana bañ ma koy jox sax soxla ma ko woon mais yàllaa ma ni jëlal bésam dafa jot tey. gooku jël naa 1000 mètres carrés boobu jébbal naa leen ko te dellu di leen ñaan. ngeen bàyyee ma tabax bi ndax loolu suma liggéey la ku ma xam ci biir Sénégal ci biir Afrique man si la xam ne liggéey tëli liggéey ay immeuble la suqali ay réew def emploi des jeunes loolu mooy li nga xam ne moo may tax a jóg donc lii dinaa ci dox dinaa ci dem te ba pare nag amalu leen ma ci sax jërëjëf hmm. ndax ab bor laay fay sama diggante góor gi mais loolu lan moo ci dugal politique daf moom moo nekk ci politique ñu dogg nag ni ñun lii mu def nii moom Abdoulaye Sylla politicien mosu koo def politicien yi mës jaar foofu yépp da ngay ñëw digge fa loo xam ne doo ko respecté comme dem na ba egg ci étape bii dinañu xar suñu tànk tubéy ñun laa la communauté sénégalo-guinéenne ñun ñi nga xam ne depuis belle rek dañuy dem ci élection yi di voter local di voter présidentiel di voter lu ne di wàcc campagne mais local yi passé Abdou Khadrou Chelane bi muy wut maire Dakar Plateau dañoo takk suñu dàll wàcc ànd ak moom def li ñu war a def parce que nit dangay def yëfu nit bàyyi yàlla def yëfu yàlla. Hmm. Abdoulaye Sylla nag fi mu nekk nii dina dinañu def consigne de vote ñun les Sénégalo-Guinéens au niveau nationale sëpp foo xam ne doomu sénégalo guinéen mi ngi fa mm. te ngay sénégalo guinéen mooy doomu sénégalais bi dama ko ne guinéen bi dama ko ci boole sénégalo guinéen ah, pour wan ni ay doomu origine guinéen la ñu ah. pour ñu votel Abdoulaye Sylla ñu gunge Abdoulaye Sylla ba mu dugg ci biir assemblée nationale am fa majorité te dinaa la wax mbir Abdoulaye Sylla ñaar mooy am ci Abdoulaye Sylla ci législative bi soit day dugg assemblée yor fa majorité wala képp kuy am majorité moo lay jox caabi ji pour nga am majorité bi. Hmm. wallahi azim. d'accord donc loolu mooy seen taxawaay ci hmm. élection législative yi. Hmm. c'est clair donc Abdoulaye Sylla. ngeen di jàppale. alors euh, loolu mu leen defal euh, amul benn coow bu ci am. si am na coow yu ci am mais coow yooyu dañ ñun dañ jàppee ne yëfu nit la. parce que nit moo jaloux. nit moo soxor mais dama ni le directeur Racine bi nga xam ne mooy boroom tele bi bu ñëwee fekk man ak yow ñu toog mu am fukki junneem ci poosam mais soxna faatu mu bàyyi la fekk ma toog na ma sii palaga fukki junni bi maa la gis bëgg déggee la may naa la ko mais lu ci sa yoon. fan la coow li li jóge fan mooy bi mu ñëwee ba egsi ba toog ne man maa am suma ma mille mètres carrés ci cité administrative u Diamniadio mm-hmm. may naa leen ko. may naa leen ko ci xol bu sadd buy te bu doyul ma xool li nga xam ne moo nekk aux alentours ma jënd ko dolli ci ba pare tabax bi loolu su ma liggéey la maa ngi koy def feneen di ko def feneen te damay ñaan yàlla di continuer di ko mën a def fii maa ngi dund man ab Ablaye parce que damay liggéeyal diine aw ma lu may fayee yàlla ci teranga bi ma jox lu dul may jàppale samay samay jeune frère samay tante ak samay bàjjan di jàppale diine. mais loolu dañuy sante yàlla c'est-à-dire euh, ku mel ni Abdoulaye Sylla ba pare mm-hmm. ñu def recherche ku ne xam na ko Abdoulaye Sylla tey boo boo wëree all over Africa tey à travers le monde entier dama laal sax le monde mais Afrique mais fu ne mi ngi fa loxo mi ngi ci biir yaa ngi gis des des Ivoiriens yaa ngi gis de Marocains yaa ngi gis de Ghanéens ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi suturlu ci seen njaboot ci barke moom Abdoulaye Sylla ci li mu investir ci dëkk ba tey bu ñibbisee Sénégal war a bàyyi loolu yëpp ñibbi si Sénégal cest à pour pour pour pour jongante dugg ci assemblée xam nga lan moo ko waral kujje politique ku tey moo lëntam moo salte moo tilim tey boo politikul gars yi politique daanu sa kaw dañoo politique bay daanu moom bi mu ñëwee di teg ay entreprise am Ecotra C50 yu demee noonu pour jàppale jeune askan bi la. Hmm. ay universitaire la dem jëli. yoo xam ne xamuñu woon métier mu jël ay ingénieur à travers le monde entier ñëw jàngal leen ba ñu mën mu jël société bi jox leen mais loolu ku buggul Sénégal ku buggul sa askan ah ku dul gor mais xoolal kuy maye ku mel ni Ablaye la gaynde ngay doon ku dul gaynde am na loo xam ne doo ko mën. alors lan mooy problème bi ci teraanga bi leen Ablaye la defal. parce que nit ñi pour ñoom loolu waruñu ko defal la communauté sénégalo-guinéenne ay aci ay nitam parce que am nañu ay kilifa diine sénégalais yu mag yoo xam ne woo nañ xalif ba kontaan ci. am na ci ñoo xam ne dañ ne non lii ñu def nii dinañu dinañu voteel sax Abdoulaye Sylla ndax acte bi mu def parce que loolu ñoom ñoo ko waree woon parce que je te dis une chose. Hmm. xoolal Afrique benn lañu Sénégal Guinée deux états la un peuple la. ñi fi nekk naan dañu jéem a diviser la communauté guinéenne la communauté Sénégal dañu sew dañoo ndaw ci yoon yu sew la ñuy dox te loolu li muy jur ëllëg mooy mooy moom mooy fitna parce que yoon bu sew ku ciy dox ay mbëkkante lay jur ay gàccante lay jur ay xasante lay jur mais damal Guinée Conakry y a combien de million de Sénégalais yu fa nekk y a une très grande mosquée à Sandravalia en plein cœur de Conakry mais loolu état bee ko état guinéen bi moo ko def mais état sénégalais bi fi ñun nombre bi ñu am sax nous sommes la quinzième région naturelle du Sénégal loolu defoo ko defuma ko loolu Macky Sall defu ko Senghor defu ko. loolu Sékou Touré defu ko colonel yaa defu ko loolu yàlla moo ko def. nit kuy dund mais mais am na exemple bu palpitant boo xam ne yàlla def na ko ci diggante ñaari communauté bi xoolal bi état yi amee problème euh, son excellence le président Alpha Condé bi jógee ak son excellence le président Macky Sall y a eu yoo xam ne y a eu un problème. Hmm. ba gars yi bloqué frontière bi. mais xoolal la communauté sénégalaise et la communauté guinéenne bi gars yi euh, bi état yi bi xëccoo pour des intérêts yoo xam ne kenn xamu ko mais peuple bi ñii dañoo jël seen marchandise ñëw ba ci frontière bi Sénégal ne ko doo dugg parce que loolu mooy ordre jot. gine na lu doo dugg parce que yooyu mooy ordre yu ñu jot population bi toog ba xàddi ñu commencé yenu seeni marchandise di ko jaayalante boo amee suukar yow guinéen bi sénégalais bi jox la dugub yow boo amee mboq bu yow guinéen bi sénégalais jox la ceeb. def échange yi di def échange xoola état bi dem nañ ba faaleetuñu sax. fermeture bi ci yooyu ma ciy remercier ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci entité bi ci population bi mais ñi ci doon dox comme le conseil des Guinéens bi fi toog tey présidé par Ahmed Wuri Thialéré ou bien la jeunesse la jeunesse euh, du bureau quoi présidé par Isiaga Top ñoom ñoom ñoom ñëpp c'est-à-dire euh, dox nañ ci loolu pour jàmm saafara am ci loolu. Mhm. donc diggante ñaari communauté yi ku ci mënul wax lu baax na nga téye sa làmmiñ te xam ne lu yàlla defar la. est-ce que identifier wax ci li leen Ablaye la defal ak wane seen ñàkk ànd. oui mais xam nga tey réseaux sociaux. dafa nekk un monde incontrôlable. Ouais. da ngay gis nit koo xamante ni day tëdd ci biir néegam soxna faatu waaye chargé connexion am du xëy liggéeyiwul gorul yatul saa may dégg fii la nekk ku rafet mu ne la noo da nga ñaaw ku wax A mu ne la noo da nga wax B saa boo waxee mu saaga la. boo waxee mu xas la est-ce que ngay dégg boo bëggul nit ku ko ku nuyu sax nga ne ko yow doo nit lu tax ngay nuyu ko mel ni kii. Hmm. yooyu mais on n'a pas le temps parce que ñun dañuy liggéey. amuñu temps di gérer loolu ñun ñun dañuy yónnee da ngay jékki-jékki rek yónnee la ay ay ay ay ay ay ay ay ay publication ay nit def lu tax mu koy def mais yëfu nit la et pour ñun dañ ne c'est bien parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax bi muy bi muy bi muy teg diine wax ji bari woon na donc waxu bari jii yëpp ni mhm. c'est pour l'intérêt d'Abdoulaye Sylla et c'est pour l'intérêt de toute la communauté sénégalaise guinéenne aussi parce que jàkka boobu bu taxawee mhm. mais du guinéen bi wala sénégalais bi wala malien bi moo fay julli umma islamique bi yëpp moo ciy julli dafa am ñoo xam ne seen niveau dafa ndaw il faut les comprendre mm. nu ñu am xel te yàlla boroom xel yi la waxal donc boroom xel yaa ngi fi benn boroom xel bu diñ li ñu naan suppandaandaanu sénégalais dëkk bu toog di ci xëpp kaani wala di ci wax lu su naka amul boo xoolee ñi ciy wax yëpp dañu limité wu. et on les comprend parce que le monde va avec. d' accord alors à côté d' Abdoulaye Sylla nekk candidat ci élection législative yi. Mhm. Euh,